te am njaboot jafala defal lii xaatim bii nga jàkkaar loolu moom ngay bind soo ko bindee nga boole ko ak ganaar gu ñuul ganaar gu ñuul nga koy booleel nga jël ndoxum mi nga xamante ne moom nga jàmbe saafara si togge ko ganaar gi nga bokk ko yow ak sa boroom kër ngeen jëfandikoo ko benn yoon te guddi lay doon su ngeen ko defee la yàlla mayoon bu ko nanguwut suñu borom mën leen yombalal ak njaboot ndoom soob na yàlla incha allahu jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu